xam nga bala mas naa ko sélectionné ba ndeysaan daa mujj di jooy. Mhm. Sa Thiès ñëw ne moom mooy jël relève bi ma ne ko doo ko defal. Mhm. loo yëg. Hmm. am na mbot de. lo ne loo yëg bi nga defee hmm. lu foog dafa am ma kay lu rax. law bu sama ndigal lee foog. ah ndigal lee wala bala génn. aja gisoo kau dara. Hmm. yaa bëgg a daan. ñu naan te maintenant nag buy xëcc mbaal te yokkuma de gisoo mu ma def nii de de la attaque si fara sama yaay mbër waaw ah, sama yaay fan ne ndax yaa may gis Ibrahima boo xoolee dama dugal benn baa fara sole ay ñu waa fan lañ nekk si sama yaay ah loo wax eh gisuma ko dama yaa Sémou Sémou antenne bi ay daaj sa loxo tey jii nga loxo ay daaj sangam yow kay lii tax ñu la doon daaj. mais xale bi ñaar boo bëggee ñu ànd. waaw arrêt daba ndooy. wara bu ma xëri jaam ñaar ñi man nga ci bëgg. ma xëri arrêt ma xëri ah ma xëri jaam. boo bëggee di daal na ngay sa bët ci cor poto corneli jaamuri. munoo noo entraîné. te dégg naa noonu nga bare ay tuut tànk de. dégg naa bari nga ay doom de. déedéet aw ma doom kay. yow sa carrière ko bëgg a jàppee entraîné dem jox ko. ah xale bi a xool ay appui avant ñu naan xale bi neew yow di yow xam naa li ma ci naqari mooy dana dagg sa gat bëccëg ci làmb bi. appuyé. soo bëggee ma appuyé faaw xale bi rombaat bi ñu a jaar yow. waa man man waa man waa man kii kan moo may tàggalee moom. Eh! dal dal ndax man nga appee wala mënoo appee. nak sëñ Bamba dama dama daal barke Rasulaay boo ma daal man neexuma dere. waaw damay appee man neexuma dere daal. bébé. Sémou li nga wax lépp waxuma ko. bébé ana. Sémou damaa bëgg nga dimbale ma. waa kii man yow looy yow looy diisal keneen di ko ñagasal. waaw dama ne nga may ma sama baat. sa baat la te dépassé yoy ah wuyuma ma am na yoo xam du wax ni nan ko waxtane am na yoo xam amul solo de. déggoo de si mu man ak yow mo jeex. way kon yow da ngay insister ni waw ah yow xal yow ak man mo yaa ko jeexal way man jeexalu ko. wa dafa doy nak do bu doyee ci yow doyul ci man. lo tax man nag ci man. man nak legi doyul ci man. waw do ma indi sa bir keur gi tàmmal ma yu neex ba sa bir nga ba ka bay di defal ay ngalax ciakiri ay soos ay tufe yu toog ba pare bëgg ma du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg. loolu yëpp nag dàkk na. dàkku tufe woo soosoo nga la ko loolu yëpp a arrêté. yow damay sa zone bu yàgg. yow ay lan la. xam nga lan la je t'aime loolu kese la du la rek. waaw man nag je t'aime pas. yow nag si xamoo sa bopp. noqu la sa bopp zone bu yàgg. ay eh, banka sa loxo bi. yow yaay kan man sa baaraam man maay xamoo ma. yow yaay man la semu. yoonu semu sa moonaam ah, bankal sa loxo bi toogal mooy waxu la hmm. bankal sa loxo bi bul waxatee man sa baat di jëm kaw danga koy dégg nag te eh, yow rek rek rek rek semu bi ma ko déggee rek bettu ma la waxaatal dara. Euh, waaye yaa réew. yaa réew yow. Euh, sa daamine yow sama daamine bi moo la daj yow. sem tijji buntu sem gis bi si nga may fekk. waaye mas ngaa gis lii. yow sa yaay laay door ba mu dëggal boppam fii ci biir. bu nekkee sijaada gu ndaw nga ñëw julli dafa sa naafi la baa nga ñëw def sa safaa witar yow ñëw yow li nga nekk ñu ñëw la ci bàyyi. naa naaj la ci ku ne moom des yow ndax mooy naaj bi dama naaj la ci ku baax waaye yow tekki woo dara diggante ma ak tey baaxoo kër baaxoo àll. pourtant tooyoon naa yow ku ne la yow. pourtant mas naa tooy de. waaw mas naa tooy de. ma wax da tooy yow. sëñ bi mënu bàyyi sama yaay mi nga gis nga yow xaw ma kañ la waaye dinaa la mas a dóoraat ci kër gi dóor yoo xam ne. waxaatal ak man ba sa baaraam jóg nga xool lu may def. parce que li sa yaay moo moo réew. ana ndax mën ngaa dégg wax ji. sëm. li ma bëgg moom far force du moo am ci kër gi. maay seen kilifa.